ay ca mbokk yeeg xarit yi ñuy suivre ci solution TV solution info jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci bàyyi xel bi ngeen ñuy bàyyi xel saay su nekk rek tey nag comme nañ ko baaxoo di defee aljuma ju ne ci waxtu wile ñu fas yéene ànd ak yéen ci émission des émissions ñu fas yéene jàkkaarloog ak sa Sanjoogu Meng ñu daal di ñëw rek daal di faram-fàccee yenn xalaat ci biir émissions yi nga xamante ne ni ñu ngi koy faral di nemmeeku ci biir semaine bile.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 xel say su nekk di leen di wax ne nag way leen di abonné ci suñuy plateforme ak ji partager suñu ay lien ñu daal di koy nuyu nag moom Alaaji Sanjoogu Meng euh, mu yokk internet yi nga xamante ne nii dañuy xaar euh, émission des émissions mu daal di ñëw indi xalaatam ci yenn xalaat yi ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow dem ba Touba nuyu xarit général des mourides sëñ mun di ko ñaan mu yàgg bi tànd ak wér waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit mm-hmm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool tànd ak wér di ko ziar wér nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaante waaw di nuyu nag Euh, ñi nga xam ne ñooy mbokk internautes yi parce que euh, semaine passée. ñu ngi mm-hmm. nekkoon ci li nga xam ne mooy. wàccaayu màggal gi. Mm-hmm. macha allah ñuy jégglu ci euh, rendez-vous boobu nga xam ni manqué nañ ko. waaw du sunu coobare waaye boobu xel yëpp a nga woon. Ila Touba macha allah jërëjëf euh, Mbengue euh, comme ni nga ko waxee rek nit ñi say su nekk rek dañuy xaar sa ay xalaat euh, tey nag daañu waxtaanee ki nga xamante ne ni moo di capitaine Dièye mi nga xamante ne ni Maimouna Ndour Faye dalaloon na ko fële ca chaîne am bi ngir rek ñu waxtaanee moom mi nga xam ne nag dafa considéré boppam ci les messagers d'Allah buñ ca noppee nag ànd ak Mbaye Ndiaye mi nga xamante ne ni Pape Ngagne Ndiaye moom itam dalaloon na ko fële ca TFM mu am ay kàddu yi nga xamante ne ni yëkkati na ko ci démocratie Sénégal ak justice bi ni muy doxee. ànd ak Pape Moussa ci sans limite moom itam am na yu mu yëkkati ci ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ne ni moo di Mambo Diaw ak ki xamante ne ni moo di président Ousmane Sonko jeexalee ko nag ak yi nga xamante ne ni du ñu tàyyi say su nekk di ko ñaanal yàlla suñu borom taxaw ko fa mu nekk te gaaw génn ko fa muy Bassirou Diomaye Faye am na ay kàddu yu mu yëkkati woon fële ci 7TV ànd ceeg nga xamante ne ni moo di Maymouna Ndour Faye léegi léegi rek ñu daal faram fàcce li nga xamante ne ni wax nañ ko fi comme sommaire dooree ko nag ak ki nga xamante ne ni moo di capitaine Dièye ay kàddu yoo xamante ne ni yëkkati na ko ànd koo ko may mun a nduur fay ñu dem xool yi boobule eh, kàddu yu mu yëkkati ànd ak ak yenn léegi léegi incha allah. man je suis un messager. yàlla dafay indi nit koo xamante ne. dafay wax nit yi lépp loo xamante ne dafa dëng parce que plus jamono di dox. dañuy lëndëmal alxuraan léegi islam boobu noonu gis nga tur bi nii bi ko wër mooy wane ne ñëpp ay jullit la chrétien juif athée ñëpp ay jullit la léegi nag lan moo xew ba Mohamed ñëw nii Jésus ñëw nii Moussa ñëw nii ñi nekk ay athée ñi nekk lii ñi nekk lii moo tax ma ne la ki nga xam ne dafay taxaw di jaamu garab ak ki lal si jaare di julli ñoo yam amuñu benn différence amuñ parce que divinité moo tax ma ne la Sëñ Tuubaa dafa wax benn wax dafa ne ad durru wa nafaw mina rahmaani mu ne leer bi nga xamante ne dara takku ko mu ne leer boobu moo solu ci jëmm yépp moo nekk ci garab nekk ci suuf nekk ci nit nekk ci lépp léegi nag mu ne loolu nga xamante ne nag mooy jëm yi feeñ mu ne mina rahmaani ñëpp ay adduwaayu yàlla la loolu la wax ñëpp ay adduwaayu yàlla la donc ça veut dire quoi ça veut que tey tur ak jëm bokkul ak li nga xamante ne mooy spiritualité donc spiritualité moom mooy l'essence des choses au-delà des noms et des apparences yàlla daf lay jox loo xamante ne daf lay wax demal nga wax léegi yow bul lijjante ki lay gëm wala kii la gëmul moom daf la wax loo tey dañoo toll si situation boo xamante ne Sénégal gis nga ni ñuy saaga saagawee kilifa diine yi man waxoon naa ko fii hmm. da gis ñoo xamante ne dañuy def ay live di leen saaga te pourtant kilifa diine yooyu lu bëri lu ñu am Sénégal ñoom la soo jëlee suñu président yi de Senghor à Macky Sall ñoom dañoo ñëw fekk pouvoir religieux boobu noonu ñu sàmm pouvoir religieux boobu léegi loolu nag ànd ak Sénégal ñuy dox ba egg foo xamante ni nag beneen cycle bu bees mooy commencé donc cycle bu bees boobu noonu dafa am keneen ko koy porté kooku nag day ñëw di leeral lépp li nga no nit ki du jàpp ne moom la de il a dafay ñëw comme li ma lay wax nii yow mës nga gis kuy politique ñëw di la tracé moo tax bi man man firiwuma alxuraan ma ne man nekkuma si spéculation yooyu noonu nekkuma si spéculation man li ma wax du jàng man ah. dégguma arab. déggu arab non dégguma arab. Mhm. je comprends pas l'arabe. man jàng naa alxuraan effectivement mais lépp loo xamante ni ay firi la affaire j'ai pas appris moo tax man la état yàlla moo ko créé te boo déparé ci kaw fii nii processus bi mu def ba indi état boobu na donc koy expliqué. jàng ah, na alxuraan. waaw jàng na alxuraan. waaw mais li ngay wax ni dañ la ko sol wala loolu nga bëgg a wax. noonu laa ko xamee. donc état yàlla moo ko créé tubaab créer wu ko. moo tax ma ne ñun bu ñu bëggee génne si suñu situation yi dañuy dem ci niveau scientifique de l'état mais en mais, tant que messager. Mhm. sa rôle lan la. dangay ñëw li nga xamante ne tey. mi ngi dem di yàqu. parce que li ko indi mooy comme li ñuy wax Sénégal boo xoolee. dañuy tooñ chrétiens yi ci lu bëri. te li ñu leen di tooñ lu ci bëri amul fondement. léegi yooyu yëpp nag alxuraan. beddiwul kenn ŋàññiwul kenn. mais 80 pour cent dañ ko firé dafa des. léegi loolu yëpp nag dañ koy rétablir. ni ko firee c'est-à-dire. ni ñu firee alxuraan maanaam ñi ñuy wax yéefar ñi ñuy wax li ñi ñuy wax li suraat yi boo koy liir ni ñu koy firee ak li mu doon dëgg-dëgg. voilà mu ngi noonu moom capitaine Dieye euh, alaaji moom mi jàppe boppam comme un messie euh, nit la bu yàlla wàcce nee na euh, pour mu nekk messager dégg nga kàddu yi mu yëkkati jamalo jëmale ko ci àdduna ni mu tëree nee na ñun ñëpp ay musulman lañ mais li tax nit ñi doon athée ñi doon ay chrétien ñi doon juif ban dégg-dégg nga am ci wax ji nga xamante ni ni yëkkati na ko waaw xam nga capitaine Dieye mbay hmm. eh, mbokkam laa yërëm waaw ah, ah, dañ ko war a faj parce li mu nekk nii dafa defe ne xam-xam la te du xam-xam hmm. maanaam ci li mu nekk nii <clears throat> mi ngi ci mbir moo xam ne buñ ko téewut hmm. yóbbu ko faji ko danañ jékki-jékki ñàkk seen mbokk parce que capitaine Dièye fi mu toll fii mu dugg nii bu demee ba ne nit kiy julli mm. ak kiy jaam garab ñoo yem te xamul ni kiy julli mm-hmm. jàpp na ni garab gii yaa ngi dégg jaamu borom bi la daa jàppee garab gi jaam kii moom jàppee garab gi yàlla mu ne ñooñu ñooyam moo lay wan ne la kon moom mii xamut fu muy teg tànkam message la nag message kan la kan moo ko yónni mm-hmm. xam nga tey boo nee diw message la mm-hmm. mën na nekk message mais message kan la du message yàlla moom. Ah, parce que loolu la considéré waaw non non non considéré wu doo xam nga ni Maimouna Ndour Faye mii sax gis nga ko da koy ree maanaam su bëggee ree la koy woo mu waxal ko wax yoo xam ne mi waxi euh, naxa mu daa dee ree hmm. yaa ngi dégg mais c'est li muy def nii. maanaam xam nga dafa am ci euh, àddina ñoo xam ni maanaam dañuy lëlu di xalaat di dugg ci yenn yi ba defee ne ñoo gën a muus nit ñi. xam ci biir wax ji rek. Mm-hmm. wax na loo xamante ni bii boo ko delloo da ngay xam ni parce que nee na jàngul arab yàlla def ne mm-hmm. maa bind téere bi wàcce ko ci lànkab arab alxuraan mm-hmm. soo bëggee xam alxuraan yi jàngil arab boo jàngul arab mënoo diingat ki ko xam ki ko jàng parce que déggoo baat yi donc yow mënoo dégg baat yi maanaam moom ci jëmi boppam dafa am ay limite ci mbir mi parce que am na loo xam ne peut-être mi ngi koy liir te xamut lu muy signifier kon ñi nga xam ne ñi ngi koy euh, jàng nañ alxuraan bi dem jàng ji arab pour dégg li nga xam ne mooy alxuraan bi parce que alxuraan bi dañ ko wàcce ci làkk boo xamante ne bi làkk arab lañ ko wàcce pour nga mën ko comprendre mm. léegi yow bu fekkente bi yow xamoo dara ci arab mm. ba noppi léegi nga bëgg a taxaw ne ñii xamuñu man naa xam man te ñii xam alxuraan xam arab bi nga xam ne ñoom ñoo la ko gën a dégg léegi yow nga bëgg a wax loolu ku mu mën a dugg ci boppam moo lay wan ne la ku dem ba yaakaar loolu bay toog ci télé yi di ko waxtaanee moo tax ma ne ay mbokkam war nañ koo dimbali. Mm. war nañ ko jàppale mais alaaji bu dofee it du lool ndax dégg naa ko muy wax euh, xale yi ni ñuy saagaa léegi kilifa diine yeeg yi ni mel. waaw mais xam nga li mu def nii moom rek daanaka diine ji la attaqué. Mm. parce que lii mu wax nii. parce mm. que suñu borom bu waxee ne parce que ni ñu déggee message. Eh, bi nga xamante ne bi dañuy jàpp ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ni kii mooy dernier message mooy ki nga xamante ni kii moom la sunu borom mujjee yónni ci kaw suuf mm-hmm. léegi moom angle bi nga xamante ni moom la jëm ban angle la message am bi lu ci jublu moom nee na yàlla da koo yónni pour mu ñëw wax lu muy wax <laughs> moom lan moo fi matut ba moo ko mottali moom donc ci lan nan naka la koy mottale xam nga pare na saa yi mm. eh, dañuy ñëw toog ak eh, ñenn ñi gis naa ko ci yeneen plateau yoo xamante ni bi day wax Euh, dañuy toog ñoo xam ne xamuñu ñoom dañuy préférer seen débat mm-hmm. du ñu toog ak ñi xam maanaam ñi xamut la ñuy toogal mm-hmm. xam nga tey jii bu fekkee ne moom day def débat am na yoo xam ne bu ci bu ko bëggee développer pour mu dugg ci bopp nit ñi du comme man la war a toogal wala comme ñi nga xam ne bii xamuñu da ngay dem seeti ji ñi nga xamante ne bii xam nañ d'abord nga xam ne li ngay wax dinañ la mën a wax wax joo xamante wax ju kii la comprendre nga mm-hmm. maanaam boo juumee ñu mën laa jubbanti yaa ngi dégg ñoom bu xamuñu maanaam nga nattal gam-gamle sa bopp ci fenn ko mais maanaam fi mu gamle gamle boppam. Euh, ci boppam moo dul baax quoi. Mm. comprendre parce que fi muy dem pour ne foofa lay dem pour gam-gamle boppam. Mm. Euh, foofu doxut. li ma koy xamal daal man daal ay mbokkam daal vraiment. Ah. Euh, war nañu ko xoolaat. jéem koo dimbali. parce que jàpp naa ni capitaine Dieye. Ah. Euh, dafa loolu quoi. d' accord dafa dafa dafay nelaw fi mu toll nii. d' accord mu ngi noonu. Aïcha <laughs> leer na macha allah. nga Aïcha ñu ànd ak yéen nag dem xool yi ki nga xamante ne nii moo ci euh, Pam Moussa. ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci président Ousmane Sonko ak Mame jaaw mi nga xam ne bërki jëm Ndiaye la daal di samp ndëndam ngir rek bëgg bokk ci élection yi ñu jëm ñu xooli vidéo bi dellusi il a frisé un peu une communication sonkoïste mais on a son rapprochement il l'a dit et il l'assume xam nga ci dara il l'assume bien sûr bien sûr je peux aller beaucoup plus loin. mooy bu weesoo madame Sonko gisuma ku gën a jege Ousmane Sonko que Mame Boye ah oui ah ça c'est moi qui le dis ah, parce que ils ont cheminé euh, ci même corporation inspection des impôts bien que Mame Boye moo ko fa jiitu mais seeni rapport parce que ils ont cofondé euh, le syndicat euh, des impôts et domaines hmm. donc euh, voilà exactement euh, tu te rappelles du Euh, oui bi ñu daje woon ci benn Bignona Bignona chez chez chez le oui Serigne ah, Fansou Bodian exactement et quelques moments au plus tard gis nga woon ne waa APR pour ñoom pour nga mën a am une notoriété pour waa ji bàyyi la xel jox la décret il faut nga saaga son ko a il est venu assumer ko ni c'est frère voilà le courage de Mamboy hier Alaaji euh, est-ce que Pape Moussa nekkul bëgg a euh, jël discours Ousmane Sonko bi bëgg ko jaxase ak euh, jeunesse bi parce que ñëpp xam nañ ni nag euh, saafoon teg nit ki tekkiwul ne yéen ñaar mis à part ay jabaram moom lañ ci teg te doxalin boobu gisuñu ne Ousmane Sonko noonu la doon doxale ba xam ne dañu nekk ci jamono joo xam ni. Mhm. il faut que nit ñi di déglu. ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko lim leen doon wax ak li mu leen wan. Mm. ak ñi mu taxool mm. je pense que ni sénégalais yi nga xam ne ñu ngi topp Ousmane Sonko. Mm. bi ñu koy topp ba nëgë ni gis nañ ñi nga xam ne ñoom la taxool gis nañ ñi nga xamante ni bi dégg nañ aussi tamit li nga xam ni moom la leen doon wan li leen Ousmane Sonko mës a jaay ak njub la mës a jaay sénégalais yi wax leen wax ju leer donte bokkoon nag ay nit fi ñu doon liggéeyee ku ci mel ni tey maam Mboy Diawo ku ci mel ni Amadou Ba waaye terewut dafa wut aw yoonu boppam même bu sampo bu fekkente bokkoon nañ syndicat des impôts et cetera mm-hmm. mais bi ñu génnee taxawal parti bokkuñu gis-gis bokkuñu jëmukaay. Mm-hmm. léegi nag bu fekkante ni bi usmaan sonk moom dañ ko téye ci jamono ji nekk nii. Mm-hmm. téye it ay jegenaaleem lu bari. jamono yële passé parce que lépp loo gis rek dafa am fu muy dooree Mame Boye def na émission. ak Pam Gueye daal di wane ni moom ak avant kii sax def na ko euh, Maimouna Ndour Faye. waaw wane ni moo Ousmane Sonko daal. Euh, expliqué def na ko aussi tamit nga ne ci Pape Ngagne assumé waat mbir mi. Mhm. waaw léegi boo jëlee loolu nga jël léegi fi nga xam ni fa lañ jëm. parce que ñu ngi def benn genre euh, propagande boo xam ne mi ngi jëm ci Mame Boye Diao xaritu Ousmane Sonko la mm. maanaam da jox ne ñii est-ce que préparé wuñu lii yëf yi di doxee mm-hmm. mm, ndax départ depuis que Mame Boye Diao commencé wax loolu parce que li ñu bëgg a def mooy déstabiliser mbir mi maanaam ay Mame Boye Diao dañu am nañ nag ay réseau mm-hmm. yoo xamante bi am nañ ko ci presse bi am nañ ko fépp je n'accuse personne mais par exemple li ñëw ci penc mi parce que boo waxee wax joo xamante ni bi tamit bokkut ak loo xamante ni euh, moom la ñu moom la ñu moom la ñu gis nit ki wan ñu ko nit ñoom ñaar gisuñu ko nga bëgg a ñëw tey ñu wax ñu ne ñu moo gën a ku ku dul ay ñaa ay ñaa ay jabaram moo la gën a jege Sonko te loolu bokkut ak li nga xamante ni bi man est-ce que du njuumte. non mais wax la bu jàll ba pare mais wax ji il faut ñuy analyser ko daal di joxe suñu xalaat ci wax ci comprendre uh-huh. xam nga Sénégal moom pare na saay yi am na yoo xamante ne bi tey nga xamante ni bi euh, waa ji ma ko Pape Moussa mi mm. li tax mu am solo sax li tax ñu jox ma jox ko solo mooy moom mi ko wax mais am na ñoo xam ne bu ñu ko waxoon du ma ko sax du ma sax jox solo quoi du ko faale parce que damay xam ni ñuy ruube lañ mm-hmm. mais gars yi parents yi bu ñuy jël nit maanaam dañuy fekk ñi nga xamante ni bii tey mm. ñi ngi dox ci mbiri xaw ma ndax comprendre nga wala déedéet maanaam tey dañuy seeti ji ñooñu pour ñu jox crédibilité wax ji ki ñuy wax wax ji ak ki ñuy waxal mooy kan parce que maam booy lancé na ay yoon yoo xamante ni bi assumé na ni Ousmane ko sama xarit la mm. yaa ngi dégg def na ko wëlbatiku ñu daadee mu génn ne àndu ak Amadou Ba ci li nga xamante ni bii moom la samp ndëndam daal di samp ndëndam moom it yaa ngi dégg ñu ne dàq nañ ko ah, muy wane ni teg nañ ko fitna. Ah, ah, waaw ci stade bi ci stade bi. Hmm. di wane ni léegi li dal Sonko nga koy dal loolu la bëgg a wan ñu xëy wax la ne la Mame Boye Diao mii kat eh, moo gën ci ñi gën a jege Sonko la bokk loolu moom wax dëgg fa yàlla kenn mënu koo dugal sama bopp. déedéet man defe naa ni. jël bën bënu puso nangu ñu jël bën bënu puso jàllale ceeb ñay mm. moo gën a mën a dugg sama bopp ko wax ci nga xamante ni bii moom la waa ji di wax nii mm-hmm. donc loolu moom mënul dugg sama bopp léegi nag li ñu bëgg mooy jamono juñ toll ni dafa am benn mbir moo xamante bi am da xasa Sonko dafa nekk koo xam ne ñaar yi yëpp dafa ne dafa ne ci moom muy lan boo ko bàyyee mu falu boo ko bàyyiwut mu dem ku mu joxañ nga falu mm. léegi nag loolu lañ bëgg a toj ku mu joxañ nga falu waaw parce que ku mu joxoñ nga falu boobu dañuy indi yeneeni personnage yoo xamante ne bii jaxase ko kii ñoo xam ne duñ ci dara ñu naan la way moo kii am nañu relation moo kii am nañ kii moo kii am nañ kii mais xam nga ne bi fi Sonko nekkee kenn ko fi waxal wax yi. mais mais est-ce que discours parce que wax yi nga xam ne a waxal moom laa la bëggoon wax léegi ma ne est-ce que discours bi mu fi bàyyi certes moo gën a dëgër que yi ñoom Pape Moussa. waaw loolu mooy problème gaay Mame mhm. Boye Diao. Mhm. moo Ousmane Sonko Mame Boye Diao lépp loo xamante ne bi tax na nit ñi bëgg Ousmane Sonko. Mhm. newut ci Mame Boye Diao. déedéet. lépp loo xamante ne bi tax na nit ñi bëgg Ousmane Sonko néewut ci Mame Boye Diao kon ñi bëgg maam Ousmane Sonko moom mënuñoo ànd ak Mame Boye Diao mënuñu ko bëgg. parce que bokkuñu. gis-gis Ousmane Sonko li tax nan lan moo tax nit ñi bëgg ko. daf na def naa quinze ans impôt domaine. Mhm. musuma faa jël 15. wallaay ak discours bi muy tënnee. Mame Boye Diao mii. ay mhm. tuuma jog na ci moom. wallaay xamuñu dëgg la xamuñu dëgg. Mhm. mais en tout cas moom <coughs> bu fekkoonte ni bii tey. yaa ngi koy wax sax keroog. waaw li mu waroon njëkkee njëkkewu ko. donc loolu mooy li nga xam ne moom la war a njëkke mhm. am na yu bari yoo xamante ne bi tegu na ci ndoddam ba noppi nag ñu bëgg ñoo bëgg a gëmloo nañu ñaar ñi kiif kiif loolu mënul nekk. déedéet loolu nañ ko jël wax yooyu ñu teg ko ci suuf comprendre nga. <laughs> mën nga jàppale nit ki mais waxal ko li nga xamante ne bi moom nga xam ci moom mais buñ ñu indil loo xamante ne bi nit ñi xamuñu ko ci moom. Hmm. yaa ngi dégg hmm. di xëcc Mame Boye Diao di ko taf ci boppam aka a wax naan nii ak naag nële mhm. Mame Boye nag def na ñaari sortie yoo xam ne mi ngi génn doon wax ci mbiru Ousmane Sonko ñaari sortie yooyu nag ndax ab gal la boo xamante ni bii léegi nag lii mu def nii est du ab yóbbante galgal waaye bu yow ñoo xam ne yóbbante galgal moom ubbul làmb <laughs> loolu moom gars yi yàgg nañ ko hmm. wax te je pense que ni euh, ngi noonu d'accord xaw ma lan mooy but bi nag mais euh, du yomb pour nga dugal ko ci boppu gars yi parce que lii euh, ñu ko mën a gëm mooy ñi nga xamante ne nii peut-être dégluwuñu ki nga xamante ne nii moo di président Ousmane Sonko ay chef Modou Diouf ñu dem ànd ak ki nga xamante ne nii moo ci mbay Ndiaye dellusiwaat par rapport à la marche du système et par rapport à la démocratie euh, le président Senghor disait toujours qu'il n'y a pas de justice en démocratie il n'y a pas de justice selon les situations ça aussi il faut que ñu ñu xam euh, bi bi bi ñuy dàq Macky Sall ci ci assemblée nationale alors qu'il oh, a tout fait pour le système en, en place en ce moment-là ça c'est la politique mais il faut l'accepter nous <laughs> tous quand on a été euh, exclus de l'Assemblée nationale mais sans aucune observation de règles démocratiques mais ça c'est c'est aussi c'est la vérité mooy boo yoree réew yor justice lu la neex nga ciy def non non du lu la neex si loolu bëgg wax non non dafay boo yoree réew lu la neex ngay def say opposants déedéet dafay arrivé ay moment yoo xam ne ku ci ne sa chemin da ngay da ngay utiliser li nga yor da nga am pour politiquer ko mën na nekk mën na nekk. loolu aussi bu ñu. bu ñu naxante. bu ñu nañ waxante dëgg. jëlal toutes les politiques du monde. noonu lay fonctionner ça fonctionne comme ça. ok daf ci am ay situation yoo xam ne effectivement adversité la et l'adversité politique ku ci ne tu utilises les méandres de de la victoire pour pour arriver à tes fins. Mhm. parce que loolu yëpp euh, foo dem ci àdduna noonu la ci politique. Aïcha euh, jërëjëf euh, Modou Diouf alaaji est-ce que tamit nag euh, demuñu ba tollu fu nga xamante ne nii nit yi ñu ngi di wax ne dañu am justice boo xamante ne nii day daw à deux cours de vitesse mbay njaay ñëw gën a jaxasewaat xel yi ci li mu wax que ni justice ak politique ni muy doxee ñu faral di ko gis yow it ban jàngat ngay def si loolu. waaw Mbaye Ndiaye de ko dëggal li Sénégalais yëpp doon wax rek. Hmm. loolu la ñëw confirmer Euh, wéral ko waaye nag mbay nag mu fàttali euh, moom ak Moustapha Cissé Lo dañ leen a dàqoon waaye bi président Macky Sall gagné dafa ñëw delloowaat leen li nga xam ne defal nañ leen fi sax rappel jox leen xaalis. Hmm. pour daal di delloowaat yoon ñu ne ngir ñu delloosiwaat li nga xam ni moom la ñuy wax yoon. Hmm. kon mbay Ndiaye moom xaalis boobu war na koo indi te xam ni la lekkoon ndekete lu daganoon la. kon euh, xaalis boobu nga xamante ni bii moom moom la récolté woon. na delloowaat xaalis boobu. parce que comme que loolu lu normal la rek euh, nañu indiwaatal suñu xaalis. Hmm. waaw léegi nag li nga xamante ni bii lii mooy problème mu. Euh, kii parce que bu jëlee bëgg a wax ne loolu ci démocratie. Hmm. non non ñi démocratie yi nga xamante ni bii am na ci yeneen dëkk yi justice bi moom dana taxaw wane boppam. Hmm. waaw. fi mu toll nii am na yoo xam ne bii tey mën nga ko def ci pays africain yi kese nga ko mën a def kenn mënu ko def ci pays européen mënul ne am séparation de pouvoir donc lii nga xam ne moom lay wax moom mhm. euh, na ko yemale Afrique bu mu ko dugal ci démocratie na wax ne démocratie africain il faut que mu séparer démocratie yi wane ne démocratie africain moom nii lay doxee waaye bu dee démocratie bi nga xamante ni bi moom la tubaab yi di def wax dëgg fa yàlla mënoo faa doxalee yëf yi nii nga xamante ni bi noonu lañ koy doxalee waaw donte nag euh, léeg-léeg nga gis nit jéem ko waaye bu yeggee fenn fi dina am ay juge yoo xam ne dinañ taxaw ne la mënul ne lii mënta ne donc loolu mooy li nga xam ni nag moom la ñëpp di jooy parce que tey jii am na yu bari yoo xamante ni bi tey euh, gis nga président Macky Sall dafa mënoon a def euh, reñ boo xamante ni bii bu extraordinaire la parce que li tax mu mënoon a def reñ bu extraordinaire parce que dafa am jaar-jaar am ay pakk-pakk sénégalais yi jóg. xeexal ko mm. def ko tey li nga xamante ni bi moom la doon mm. kon donc waroon na sóor sénégalais yooyu mm. tey jii am na loo xamante ni bi bu ko defoon soxlawul woon sax tabax yu bari yeeg yëpp rek mais bu jëloon li nga xamante ni bi tey moom moo nekkoon ay galgalam ci bi mu nekkee opposition mu fexe ba lu mel noonu amatut séparer li nga xamante ni bi moom la ñuy wax pouvar yi comprendre nga ba nga xamante ni bi nit ki ak ku mën di doon parce que li mu doon wax ne je ne protégerai personne loolu mu jëfee ko doxal ko wóor na yàlla bu fiy jógee dañ koy tàcc sénégalais yëpp dañuy jóg tàcc ko parce que xam nga tax dañuy xam ne delloo na li nga xamante ne bi moom la ñuy wax yoon fa mu war a ne mais nag problème bi mooy lii ñuy gis nga xam ne ñi jàng droit bu ñu ñëwee wax la ci wàllu justice dem ba ki nga xam ne mooy ministre bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllu yoon taxaw bés wax ñu lim ñuy wax xëyaat benn bés nañu nañ jël yoon teg fële wax ci lii te moom yoon a tax muy fay de mu ne nañ ko teg fee te wax ci politique nga gis ni yooyu mooy yi nga xam ne mooy problème bi Mbaye Ndiaye indiwaatal la fii tamit mm-hmm. ne la mbirum yoon bu fekkente ni bi démocratie la ñu nekk politique bu ñëwee day dàq mbiru yoon yooyu loolu lañ lay wax parce que mm-hmm. lii ñuy Mbaye Ndiaye di wax nii nag bul jàpp ni wax la joo xamante ni bi waxu kese kese la mais dafa am fu yëf yi war a jëm yëf yi fi mu war a jëm mooy lan parce que Ousmane Sonko ci jamono ji ñu toll nii li nga xam ne bii moom la ñi jàng yoon tey wax yoon nga xam ne dugaluñu ci politique wax mooy dañ ne kenn mënut a tere mu nekk candidat léegi nag bu dee ci yoon lañ koy jaar léegi nag pour wax mbay jaay ji da lay indil ne la wax la joo xamante ni bii tey dugal na ko ci bopp nit ñi wan la ne la en démocratie mën nga def loolu kii comme ni ko Pape nga relancé ne ko kon boo yore mbir yi mën nga doxalee dina neex mu ne ko waaw noonu la yëf yi di doxee kon fi mu toll nii tey bu ñu xëyee ne la Ousmane Sonko nekkul candidat nekkul kii te jaarale wuñ ko fenn ci wàllu yoon. Mm. bu mu la wet mm. parce que annoncé nañ mbir mi. wax ji ni nga xamante ni bi noonu la waxee nii. beneen côté bi aussi tàmm nañ gis à chaque fois suñu waxee loo xam ne arrangé wu leen après dañuy am ay sanctions yu ñuy teg ci seen kaw looloo fi daloon maître Moussa Diop est-ce que tamit xalaat boobu mënul dellusiwaat mu wax ko mu rëcc ko après président bi jël ay sanctions. yaakaaruma ni wax ju rëcc la de. Hmm. Hmm. dama jàpp ni wax la joo xamante ne bi luy annoncé li war a ñëw ci kanam. li war a ñëw ci kanam. gis-gis boobu nekkul wax ju rëcc quoi. d'accord fi jamono ji toll nii euh, du ay question rëcc. peut-être que ni dafay lu muy lu muy dugal préparé ah. pour ñu dugal leneen ci kii bi parce que bu ñu demee ba ministre justice taxaw ne condamnation bi définitive na Ousmane ko perdre na lépp te hmm. yoon waxagut loolu loolu mbay Ndiaye ñëw wax la lii hmm. booleel wax yi rek daf lay jox ne la wax ji am na lu ñuy préparé lu mu wund hmm. waaw cas yàlla na nekk luy arrangé askanu Sénégal. ñu jeexalee nag ak Bassirou Diomaye fay kàddu yi nga xamante ne nii euh, dékkoon na ko euh, ci micro may mun na nduux ñu dem xool yi ko dellusiwaat. man je suis un de la vie may mun na fi ma dëkk juddoo fa j'ai eu beaucoup d'amis d'enfance yoo xamante ni lu leen faat mënoon na ma faat. et je n'ai rien fait d'exceptionnel waroon mu tax yàlla bàyyi ma may dund bay wax ak yow ni un fi ma juddoo maggee fa. le taux de déperdition scolaire et tellement élevé que ñi ma xamoon ñu continuer seen njàng ba en entrée en sixième sax bëriwuñu yàlla xalal ma yoon ba dugal ma dans une dans l'une de maire administrations bi may def concours ENA dama dama ko defandoo concours magistrature dama admi admis ENA ba pare ba xam position bu baax mu wóor ma ne mën naa dem ci régie bu ma neex ma def concours magistrature génn admis admissibilité je ne suis pas allé faire les admissions ñu woo ma demal demal ma ne ko je n'ai rien à à prouver à quelqu'un si ce n'est à moi-même bu fekkee ne nag xam naa même su ma demee su ma jàllee du ko jël jarul ma fay dem pour prouver que mën naa ko jàll naa bàyyi ñeneen ñoo xamante ne non n'ont pas eu cette chance là avec l'ENA ñu tenté seen seen seen seen chance donc yàlla mënu la defar lool ba pare suturaal la gis njaboot nga nga yab ko yabeel gu toll ni ngay xalaat nit nee la signé naa décret génnal fi nga nekkoon dootoo fa liggéey kooku moo yor sa war ba yow li nga war a bañ ci réew mi pour que liberté bi nga am mu da am dara lu ko lu ko gàllankoor ci gannaaw non su ma defee loolu di dignité sax awma ko en tant que nit merci d'accord Alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne euh, Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ko euh, genre discours yi mel nii ak genre nit yi mel nii est-ce que mérité nañu ñu leen di tëj ci kaso bi ba ba ba heure bi ak li mu wax ci euh, concours yi mu def mu xamoon ni carrément euh, su defee lee mën na ko euh, admis te gis na ni peut-être am na yeneen frères yu nga xamante ne ni mën nañu am sens boobu noonu moo tax mu bàyyi. waaw xam nga Basirou li mu wax. Hmm. mooy li Ousmane Sonko wax mu lu ñaari wax la rek yoo xam ni boo xoolee kii daf ko waxee nii kii waxee ko ne le muy Ousmane Sonko ne. yàlla dama koo gëm wóolu ko moom rekk nag moom dong lu ma teg ma tegoo ko mhm. bu neexee ma sant bu naqaree ma sant damay xam ni sunu boroom moo ma teg lii du dëgg Basiru li mu wax lool la xam nga lu tax ma ne la li mu wax lool la mm. maanaam dafa la traceel ak dundam wan la ne la eh, eh. lépp du kenn ku dul borom bi parce ndawa noona ak màgga ak ay moroomam ñii gaañu ñii kii nekk na ci zone boo xam ne njàng ma demeewul noonu mm-hmm. mu génn rëcc ci njàng bi mm-hmm. ba génn admendoo ay concours mm-hmm. daal dee dem choisir li nga xamante mooy kii soxla wut a kenn lenn lépp sunu boroom la que ni loolu nag bu fekkente ni bi dem na nag bay tiit nit di ko wax ne ko bu ñu defee nii mën nañ laa supprimer li nga doon par décret muy ragal loolu yab yàlla la mm. maanaam gis nga ngëm yàlla lu foofu la ku gëm sunu borom ak ku gëmul sunu borom di wuutee parce que am na nit ñoo xamante ni lépp lu ñu def ñu defe ne seen réussite ak seen kii yëpp dañuy defe ne ñoom la ñooy ngand ñoom ñoo am xam-xam ñoom ñoo kii mais moom gis nga jaar-jaaram yëpp sunu borom la ci gis. Mm. parce que toll woon na foo xamante ni fii peut-être mi ngi def loo xamante ni bi mënoon na cee ñàkk ba kanam. mënoon na demee neneen mais jàpp na ni troisième bi nga xam ne moom la ko yàlla rëddal yaa ngi dégg yàlla moomu nag lay wóolu bañ koo yab parce que yab ko bokk na ci ngay tiit defe ne sa moroomu nit mën na laa euh, xañ wërsëg war a ñëw ci yow kenn mënu ci dara wërsëg wi mën a ñëw ci yow kenn mënu ci dara léeg-léeg mbir xew hmm. li wolof di wax naan yàgg bawul dara par yenn saa ay pakk-pakk dina am ci dund doomu aadama hmm. mais ay pakk-pakk la luy defar sa ëllëg comprendre nga parce que la fait ñu jëli ji vidéo Bassirou Diomaye fay bi ngir teg ko. Mm, te lu yàgg la ngir rappelé ko ñi nga xamante ne bi ñooy sénégalais yi. Mm. c' est pour montrer leen ne leen mm. dara newu fi lu dul borom bi. kese yàlla rek a fi ne. Mm-hmm. nit ñi nag danañuy jéem ak a tekki pexe. waaye sunu borom la muy dogal. jaam munu ci dara dogal na ko ba noppi. Mm-hmm. ak pexe yu doomu aadama yi mën a teg. Mm-hmm. ak a def. ak naan lii du am ak lii nii lay demee. Mhm. loolu moom mooy li wolof di wax naan jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla lu ko soob lay def. te mhm. kenn mënu ci dara dara dara dara na ne mu ne lay wax. Mhm. nan ne lii day ne mu ne yàlla lu mu ne day ne day ne. mbindeef mënu ci dara waaw mbindeef mënu ci dara. donc foofu nga xamante ni fii foofu la seen degré gëm toll. loolu vraiment dafa am solo. parce que gis nga ma jigéen. gis nga nit boo koy booy dénk booy jël dara di ko dénk nit. dénk ko nga am ngëm-ngëm. ak lu mu mën a doon mais na am ngëm-ngëm gis nga nit bu amee ngëm-ngëm. dana am muy ragal mën naa def lu ne. waaye nit bu fekkente ni bi amut ngëm-ngëm nga xam ne li muy def du ci seet digganteem ak boroomam kooku it mën naa def lu ne. kon donc nañu xoolaat nit ñi di tànn tey settantal. di xool bu baax an ana kan la ñuy joxañ ak kan la ñuy. d' jëf jërëjëf euh, Mbengue Mbour en tout cas Olof Ndiaye nee na fa yàlla defaree nit euh, xaju fa ba di fa yàqee donc kon nag ñu bàyyi la nga tàggatoo rek ba beneen altuma incha allah ci kàttanu borom. incha allah kon nag mbokk yi mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ñu doon bàyyi xel di ñuy suivre ci émission bi de di émission des émissions jaajëfal Modou Diouf Abdou Top Lay Diallo gërëm leen sant leen jox leen di daje beneen aljuma incha allah.